mbokk Dakar Media TV nuyu nañ leen gérer leen am mbekk ngir di ànd ak yéen saa su nekk dënkal leen lu di xibaar ci biir réew mi mu mel ni Ndella Madior Diouf mi ngi ci guddi gu bët setagul bu ñu sukkandikoo ci xibaar bi nga xam ne jot nañu ko rek daal di fësal moom mi nga xam ne moom moo jiite woon kër yërmande te jot faa accueillir ci lu tolloog téeméer ci ay xale bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne nunu ba jot na koo yëkkati te mu rek jaar ci Seneweb ni ki démb Dakar Actu xëy na tey di xamle ne Ndella Madior Diouf sûreté urbaine jàpp na ko ginnaaw bu ci yoon dugalee loxoom ngir rek ñu jëli ko ci këram lu ni mel noonu la ñu ko dal di amalee ndaxte vidéo yi nga xam ne moom la ñu tas ci réseaux sociaux yi comme ni ko ñu baree bari doon sàkko yoon dugal ci loxoom procureur autosaisiru ngir ñu dal di dem jëli directrice bu Safir FM bi mën ko rek dal di laaj ana li fuité ci réseaux sociaux yi naka la demee coow loolu nag mi ngi bëgg rek dal di ëpp loxo moom Ndella Madior Diouf jamono ji mu ngi ci loco yu brigade protection de la sûreté urbaine fa ñu ko rek dal di teg bu ñu sukkandikoo mu mel ni nag fi ne enquête ba dana gën di wéy ngir rek ñu gën caa xuus ak li nga xam ne moom moo di vidéo yooyu fuité ndax nunu ba jotoon naa leeral lu bëree bëri ci situation ba nga xam ne moom moo am ca kër biir Ndella Madior Diouf jotoon publier ay vidéo waaye wane ay xale yoo xam ne état de santé ba ñu nekk jotoon naa sax jooyloo ñu bëree bëri demoon sax bay avancé ci am na ñoo xam ne jot nañ caa rek daal di ñàkk seen bakkan mu mel ni moom Ndella Madior jotoon naa tuumal nunu ba nga xam ne moom moo di Aïda dem sax bay wax ne waa kër Sonko di pas Pastef ñoo ko yónni moo tax ñu daal di koy infiltrer ci infiltration boobu nag lii rek lañ ci bëggoon ngir yàq image am moom deela itam gis nañ ko mbu muy def live di attaquer ki nga xam ne moom moo di borom réew mi nekk ci TikTok ndax jàpp na ne euh, vidéo ba mu def lii rek la ci jublu woon ngir yàqal ko waaye itam def ko gën rek daal di defaral ndax ma ngay wax sax ca vidéo ba ne démb ba vidéo yi génne ba léegi jógul ci di recevoir ay appel ay nit yu taxaw ngir rek dal di koy jàppale ba ci ay laaj yu ñu sampoon an rek lan moo tax ndee la di jël yenn ci ay turu xale yi di leen tudde ay autorité ndax def ko def business ngir di ci ut xaalis ak yu demee noonu lu mën a xew daal fi ne nii coow laa ngi mel ni tulleeg màlle yenn ci ay kilifa nag jot nañ ci rek daal di yàbbi jàpp ne mbir mi warul yem fii ndax bakkanub jàmbur kenn du ko fowe rawatina ay xale di ay moomin xamuñu dara waaye tam ŋàññ nañu wéjur yi nga xam ne ñoom ñuy jur seeni doom ba noppi di ko jox Ndella Madior Diouf beneen ci ab laaj bu nu samp ana rek Ndella Madior ci wan anam la taxawale kër yërmande gi ba dem ba tuddee ko ab pépinière dem sax ba cay wax wàllum crèche ndax nekk na loo xam ne euh, lu ñu war a mën a autoriser la ba noppi yoon dugal ca loxoom ba noppi daal di koy gunge waaye gis nañ ne muy recevoir xale ya nekk na loo xam ne rek lu jàdduwul la beneen ci ab xibaar boo xam ne jot nañ ko moo di Aïda di pop euh, di nu ba nga xam ne moo jotoon jaar ca kër bi ndeela Madior Diouf daal dina koy porter plainte ni ki démb ndax rek dafa daal di diffuser image am mu jàpp ni moom dee la lam ko def du dëgg du yoon jiiñ na ko sàccum nunu ba noppi daal di cay teg génne ay photom ak ay vidéo mu ne def koy rek dal di porter plainte fan la wanet di mujjee ak i gëtam fi ne nag moom moo nekk li ñëpp di xaarandoo ginnaaw li nga xam ne moom moo di image yooyu te ñu bari jàpp ne rek mbir mi fi ne warul yem fii ndaxte situation ba dafa mujjee daal di délicate Dakar Media TV dana ko topp woy di ànd ak yéen ngir toppal leen xibaar bi ba lépp lu ci yemba dana ci dikkaat ànd ak yéen andi leen ay leeral jërë ngeen jëf ñu yëndoog Thank you.